ñaawal deram ak parti politique am waaye tamit ci ay ñoñam njiitu Pastef de Ousmane Sonko nag di ñaawlu bu baax injustice yi nga xam ni rek mu koy teg bu ñu sukkandikoo ci moom nag ko waral yi la ñaawteef du kenn ku dul njiitu réew mi Macky Sall te yooyu la violation nag feeñ na bu baax ci ay rapport yoo xam ne génnee nañu ko lu ci mel ni rapport ba ñu amal ci 2021 ci àq ak yelleefu doomu aadama ci Sénégal waaye tamit beneen rapport boo xam ni mission de suivi électoral de l'UE moo ko amal ci Sénégal li ko dalee fukki fan ak ñaar ci weeru mars ba juróom-ñeenti fan ci weeru avril 2022 te nag ñaawteef yooyu bu ñu sukkandikoo ci njiitu Pastef Ousmane Sonko dem na rek ba ci partem bii di Pastef nga xam ne nag ñu bari dañuy rek wax ni parti terroriste la waaye tamit onté occidental loolee di ab dut baaraam di ab beddi waaye tamit am ñaawteef boo xam ni ñaawlu na ko bu baax muy xamle ni nag lii dafa di ab campagne boo xamante ne rek ay média ak i cabinet lobbying yoo xam ne ca biti réew lañu bàyyeekoo ñu fay leen ñoom ñoo ci nekk. loolee nag tàmbali rek ci moom ginnaaw ba mu duggee ci langue politique yi ci atum 2014. man maay mennum om politique mi nga xamante ne ni samay àq yi ci gën a ndaw mi nga xamante ne sax jox gëdd sama dund la sama njaboot waaye tamit li ma moom dem ak dikk dañu ko njuut njaaj. ñaawteef yooyu nag. muy xamle ñi koy gën a amal moo di rek way takk der yi ndaxit fukki fan ak juróom-benn ci weeru février ginnaaw ba ñu dàqee procès dox digganteem ak ministre bii di Mame Mbaye Niang ñu fekk ko ci ab otoom ba sax toj vitrier ñu ngi xupp di ñu métital waaye tamit bunu xataal ñu ci suñu xel loole tukkee nag ci police ak gendarmerie waxuma sax li nga xamante ne rek moom moo jëm ci agression physique ci suñuy convoi di daj. Ousmane Sonko njiitu Pastef di xamle ni nag loolu lépp. day dugg rek ci li njiitu ma mi Macky Sall xamle woon ni dina fexe ba ku jegi seen baat dootu jëm ci kaw.